ni nga xamante ni rek noonu la sama frère di combaan ubbee euh, ci li nga xamante ni tey moo di waxtaan bi ñu dooree ak li nga xamante ni nag moo di wàccaayu tabaski bi waaye oustaz ba tey rek ci li nga xamante ni tey moo di actualité keroog ñu gis sénégalais yu bëri nag jug taxaw di ko xeex muy projet de loi bi nga xamante ni keroog voté woon nañ ko foofee noonu ca assemblée mu juróon nag ak li nga xamante ni moo di ab coow ci député yi nga xamante ni nag ñoo nekk foofu yooyu nag yan kàddu ngi ciy yëkkati. man de ñàkk jox seen bopp orma rek lañ ma métti. député buy xeex lu muy wuti assemblée xam nga député lu mu doon mooy poto bi yenu plafond bi su poto yi daanoo fa plafond bi jëm yaakaari Sénégal yi yépp ak yaakaaru njiitu réew mi yépp mu ngi aju ci député yi ñoo gën a foor président parce que lu président na ma def ti ànduñ ci du sotti bu sottiwul nu mu koy defee su indi woon loi bi waa assemblée rejeté ko ku koy ku koy wote kon as député yi dañu war a xam ne ñoom dañu war a xam ni ñu foor lañu ñu bàyyi seen théâtre bi nekk ne assemblée di xeex ne assemblée di saaga ne assemblée bu nit di wax nga di ko rëbëje kon ñoom lu fay def gis naa fa ñaar ñu gedd ñaar dañuy wax ba ci digg ba ñi ñi di ñii di leen rëba ji ñu gedd dem seen yoon mais pour lan kenn rek laa fa naw kenn te jigéen la député Awa Guèye laaj ma lu ma ko nawee loo ko nawee dafa jël parole di wax am kuy rëbëja waxam mu làkk ko ci tubaab ne ko nga baal ma ba ngay wax dama laa déglu nga baal ma booba la waaje ne kamaj afik caractère bu bu bu rafet da ko wax liy fullaam rek noppi mënoon na di xuloo moom baa saako gis nga nit day xam boppam wa fii anfusikum afala tubsiroo na yàlla nee xanaa avant ngay dem assemblée wéetoo xalaat yow yaay kan ak lan nga représenté ak yow nga doog a dem assemblée soo xoolee yaay kan ba pare da nga yëg ne ah balil insaanu ala nafsi basira nit ku xam boppam la ngeen am yar am xam-xam am niti lii mooy gérer réew yar xam-xam niti mooy intellectuel mais intellectuel yu saagante sa doom toog ci tele bi xool baayam ñu koy saaga xool baayam ñu koy box sa jabar seetaan ñu di la talaata baa ñu lay box ki la tooñ lu tax mu di la tooñ parce que indi wuñ ko assemblée pour muy tooñ nit ñi assemblée defuñu ko pour ñuy xaawi sutura mais boo seetloo ñu bari waxuñ ci luwaa bi dañoo wax lu leen naqari ñu bëri nag la seen naqaru xol wuñ meree Iran ca lañ waxee maanaam am na député bu fa ne ñu mere ko gaaruwaale ko bi ci des mooy loi boo gis bala ñu koo voté nañ jiital càmbar ndoxaan muy jiitu takk aha am déet sinon musiba am ni mais loi dañ koy càmbar su président bëggee dara ci réew mi gis nga gis nga ñun ñii di waxtaan ci diine ji am na luwaa yoo xam ne ay atte yoo xam ne sama junni xel xalaatul ma atte ko bu ma koy atte àdduna tukki te te te dagan na mais jamono laaju ko da ngay gis ci àtte loo xam ne da lay ni loi bi amoon na fi léeboon luppoon amoon na fi daan na am ba mu amee num def jaaree fa jeex am déet d'accord loi bi amoon na fi ok mais est-ce que yi fi nekk jamono tey laajati na ko ok ou non oui ñu ne ah biñ ko càmbaree de gis nañ ci quelques points méngoowul ak réew mi ñu ne nañ ko dindi quelques points ñu ne baax na ñu ne nañ ko dugal bu ko defee ñu dugal li yéen génn ñu seet luñ ko mottalee mais bul ne man APR laa bokk xaw ma nañ koy waxee. kii ne man maa ngi bokk pokk PDS. kii ne maa ngi bokk fan. gëm sa bopp gëm sa bopp. kii ne maa ngi bokk fan. ku ne am nga fa député. sunu président Bougane am na fa ay député am. Mhm. Euh, Mame Abdoulaye Wade am na fay député am. kenn euh, Ousmane Sonko am na fay député am. Mhm. Euh, Macky Sall am na fay député mhm. damay joxe exemple rek. Khalifa Sall ak keneen ndax Bougane amagu ko fa. waaw mais damay joxe exemple rek. mais loolu su fekkee am na. boo demee ba assemblée. bul waxatil sa parti bu ko waxal. bul waxal Macky. bul waxal Mame Abdoulaye Wade bul waxal. ka nga représenté déedéet waxalal dëgg. mel ni bi ko xoolee ñàkk waxtaan dafa am ci seen biir. amul. parce que suñ demee ba mu ñennal ñennal ñennal baaxul. xam nga baatu su leen neexee bu leen naqaree danañ ko voté. non warul ji foofu. parce que kennu réew mi la. su ngeen toogatee sénégalais leen ko. te bu leen ko partil bi ci des wax leen dëggug yàlla gi te xam ne am na ñu leen fi jiitu woon bàyyi jógee nañ fi yéen a fi ne te da ngeen jóge jógee te àllaaxira da ngeen gisee ak yàlla ni di sóoraale ëllëg moo tax loi bo ñun ci charia boo demee am na atte yoo xam ne ñi muñ ko tudd léeg-léeg ma dégg ko cof ma araftu ko léegi léeg nit laal ko rek ma alerté ko parce que damay xam ni bu ko tuddee àdduna tukki moo tax ni ñuy waxta ku duggati assemblée bul bokkati ci parti bokkal Sénégal am déet ku duggati assemblée bul bokkati ci parti bokkal Sénégal mooy lan seetal lu arrangé peuple bi mais yow ñu fal la magum jëm weeru wu ñu fay la salaire te sénégalais yee tax ngay théâtre ci ci ci assemblée président assemblée ngi toog ministre yaa ngi toog président ngi seetaan mais am na loo xam ne damay oo concernant yi avant loolu ñu waxtaan woo ñi ma yilif ak ñi ñeneen yilif ñu wax ak ñoom suñ dajee dajeetee assemblée bu leen ma voteel bu leen voteel seeni leader voteel leen dëgg su munee jàll aca su mënta jàll téy leen ko sénégalais leen ko man man man ganaaru kenn nenu ma man ganaaru yàlla rek aussi wax du ma wax lu dul dëgg ku yor sa alal téye ko ñun buñ fi nekkul mais congaan ma wax la leen su diine waxul ku ñemee wax mais yàlla rek ko war a wax moom moom nit ñi ah waaw ñu ne woy oustaz yi waru ñoo wax kii du affaire euh, ay yow affaire politique ban politique ak polémique du benn kii c'est pas politique c'est polémique dëgg loolu dëgg mais mais du politique suñ demee ba bu Iran taxawee di wax euh, euh, seen lan. Amadou Fall seen ba naan mu ngi si waay waay oo oh, oh, oh, di ma rëbëje su jogee di wax nga rëbëje ko. keneen jóg wax keneen rëbëje ko mais ça vous êtes des théâtremans. vous êtes des théâtremans. vous êtes des comédiens c'est pas normal. dans le Sénégal parce que loolu du suñu alal c'est pas normal aussi bu ko defee yooyu mais duñ leen bàyyi nag ci lu leen neex parce que ñoo bokk réew mi te dañ leen di fay salaire salaire bi di xaalisu réew mi kon réew mi ku ne am nga droit soo gisee lu ko yàq nga wax ci fayuñu leen seen xaalis xaalisu réew mi lañ leen di jox xaalisu réew mi président moomu ko sénégalais yee ko moom yéen ngeen wax wax bañ def leen député su ngeen demati ànd leen ak yar ànd leen ak rigueur am leen xam-xam nite leen te bañ a noonoonte waaye voté loi ci par force amul fenn laa ikraa fi diin yàlla nee na sax amul forcé waxuma la ak lu dul diine macha allah. fi may jeexalee xam na suñu donteen oustaz sonn na rek ay kaddu yu mujj. kaddu yu mujj combaan comme ni nga ko waxee rek ginnaaw bu ñu ko gërëmaatee bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko si ñun ñi nga xamante ne tey ñoo di presse en ligne bi ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax a baax mais usa ñu tëjee ci benn kaddu rek muy fan yi gis nañ li nga xamante ne moo di sëriñu tarixa yi bari nañ macha allah ci réew mi mais dafa am polémique boo xamante ne dafa judd seen biir muy tontante ak waxante li nga xamante ne tey mooy lu ñaaw mu mel ni ñàkk déggoo dafa am seen biir te nit ñi soxla leen ci li nga xamante ne moo di faj aajo ak faj soxla. waaw xam nga wax naa ko kële sëriñ Assane tuddee na ma doom gis nga sëñ bi koo defal lu baax dégg mu wax la lu bon baa mu def la lu bon bu ko meree loolu la am bu ko mere loolu la am nit mënta maye lu mu amul gis nga ñuy saaga nit ñi loolu la am te am na ci ñoo xam ne seen baay fase na seen ndey bu yàgg ñu xuloog seen baay tuddante moom dànd ko ba seen baay dee te waxuñu ca gis nga koo koo gis mu naan la defaraat sa sàgganu wi moo la gën a sàgganu kon man di ñaanuma yàlla congaan falu ci deru nit xam nga luy loolu wax ci nit lu ñaaw ba nit ñi bàyyi ko pour man ñu téye ma yal na ma ci yàlla musal Serigne Cheikh nee na nii la def loxo bi na bëgg sama der du ma tax a taqal sama der du ma tax a taqal deru góor te am moo bëri ci jamono ji am na ñoo xam ne seeni sëriñ leen jël ñii boromi alal jël leen ñii seen parti politique jël leen di leen mosal ni leen mbaw leen ni xaj di mbawee mooy mooy bandi yi saaga ci tele yi ak rajo yi ak journaux yi am ñoo xam ne seen sëriñ leen jël def leen mbaam ñuy ŋaaxal seen sëriñ ñii ay xaj lañu ñu dañuy baw ñii ay mbaam lañu ñu dañuy ŋaax ah mbaa wa inna ankaral aswat ah loo waxuma ko di yàlla nee na am na nit ñoo xam ne ñoo représenté mbaam dañuy ŋaax am ñu représenté xaj dañuy mbow am ñu représenté zéro dañuy yàccaaral donc yow da ngay congaan day ñaanalaate donte sax dugal na fi benn woyaan bu sew waaw dégg nga eh, xam nga. yow da ngay mu ngi mel ni parti politique yi. oppo opposition bi rek mu ngi mel noonu. kenn ku ne boo xëy yaa ngi campagne. mais gëmal yàlla rek ne luy sa wërsëg da ci jot. mu ngi mel ni géej gi. mool yëppay dugg rek. ku ne gëmal yàlla luy sa wërsëg na nga dajeeg moom. mais sénégalais gëm a ko dese. gëm yàllaa ko dese. man de barke alquranul karim la Pape Tafsir Alsaan Mbaye waxoon laa lay wax nee na bu dee xaj boo jël mu mu mu mbaw la. yàlla sa xaju baay. waaw Tafsir Alsaan Mbaye ko waxoon góor gu na bu dee xaj boo jël mu mbaw la jëla sa xaju baay waaye kay mbawal ma. kaay saagaal ma diw. kaay xasal ma diw. kaay sos joxal ma diw. xanaa xamoo ne lu bon loo wax ci nit. ñu jël sa jaamu yàlla jox ko. ñaata jaamukaay yàllaa nekk Sénégal ñu bokkul ci diini islam est-ce que danañ jumba tudd Muhammad non non donc kon liggéey bi ngeen di liggéey wax ju ñaaw du ko sottal maa ko yor ak yorul leen kenn ko yorul ci yéen yàlla yorul lépp kenn yorul daara bàyyi leen maa ko yor góor góorlu leen ñu bokk sunu Sénégal defar sunum réew di waajal sunu tabaski ci ñuy julli ji julli ji te ngeen bañ ci xuloo te njàppoo nekk benn man nag may noo stress may noo souci Iran Ndao merci beaucoup. merci beaucoup macha allah oustaz Isa di kontaan bu baax a baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalal nañ ko mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro ca jërë ngeen jëf.